bopp lañ gën a wóolu ci Amadou Ba. alors non loolu jarul xuloo damay tàllal loxo rek. je vous appelle à ce que ngeen fekk si le candidat quand même Amadou Ba. parce qu'il porte l'espoir que ne mën na continuer PSE bi nga xamante ne jox na résultat yu kawe parce que quoi qu'on puisse dire ñoo ngi jéem a attendre des un taux de croissance à deux chiffres. vous voyez bien l'exploitation pétrolière les transports ferroviaires ainsi de suite en tout cas le visage du Sénégal a littéralement changé en ce yaa ngi ci pour gën a. atteindre vers l'émergence et ça il faut quelqu'un d'expérimenté ku xam état te xam liggéey nee naa gars yi réew de c'est quelque chose de très sérieux bu leen denk réew ki nga xamante ne musta gérer institution. ki ñu koy dénkoon Sénégalais ñoo koy gis. waa dégg ma maam Birame dafa am. léegi avant may avancer si euh, Nguer s'il oh d'accord ñëwaat. Mame Birame avant ñuy ñëwaat ci parce que c'est le dernier intervenant sur ce thème-là avant les chroniqueurs mais dama bëgg ñu nga leeral ñu benn affaire parce que dafa wax sànq ne l'autorité de la ju de la chose jugée accès guñ fa parce que ñi nga jëm cour suprême pourvoi en cassation si jamais les avocats de l'État def li ñu wax. Mm-hmm. mais euh, daf koy wax tout suite rek sama xel dem ci de c'est pas la première fois lu mel noonu am fi avec Khalifa Sall amoon na fi et la mm-hmm. <laughs> mais tout à moo moo tax ma ne ko day dugal boppam. puisque bu nekkoon tey. Euh, comment dire euh, beneen procès amul bu bu Ousmane Sonko. Hmm. ak euh, bu Mame Mbaye Niang. Cour suprême waxu ci. li ñuy def mooy day bénéficier Sonko day nekk candidat. Hmm. day nekk candidat. Hmm. donc fa ñuy vider dossier ba ba mu jeex takk àggaguñ fa <laughs> àggaguñ fa donc day nekk candidat. ci ci la ñu nekk daanaka ci dossier bi. puisque décision de justice am na. code électoral ci article 47 lu mu wax mooy. Mhm. décision de justice bu amee compte tenu délai yi nga xamante ne nii moo am dañoo war a appliquer immédiatement la ñu bind ci code électoral bi. Mhm. décision bi nga xamante ne nii jël nañ ko. boo leen di appel ngeen appel dafa mel ne rek nga dem tey tribunal ñu tëj la deux ans de prison ferme parce que da ngaa sàcc lii wala da ngaa def lële nga war a dem prison nga ne non non dem parce que samay avocat nañ def euh, euh, euh, appel. c'est ça avec Khalifa Sall c'était quoi le problème. Euh, non cette affaire Khalifa Sall dañ ko condamné. oui ñu ne euh, comment dire. Euh, condamné ko en appel aussi. après mu saisir euh, la Cour suprême pour une cassation. mu def cassation. ñu condamné ko mu bëgg def rabat d'arrêt. rabat d'arrêt boobu c'est suspensif ou c'est pas suspensif. c'était ça le débat di discuter. bi également. Euh, comment dire ñoom seen recours bi c'est pas suspensif dañu war a appliquer la hmm. décision bi nga xamante ni le tribunal de Dakar jël na ko mais ngeer bu yàgg mais xaaral man ay mais article laay cité ay article laa lay liiral yow nag bu la neexee nga xool asamaan si wax lu la neex mais man ay article laa lay liiral article 47 laa la wax bu code électoral hmm. ma liir ko nii ah ngeen dégg hmm. ñu ne ana Moussa. article 47 bu ak non non tam tam nga dindi ci ay affaire tam nga dindi ci ay affaire waa xaaral rek waa xaaral ma ko rek en tout état de cause xaaral rek en tout état de cause compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions mhm. les décisions de justice rendues mhm. et transmises à l'autorité compétente ou au mhm. service de gestion du fichier électoral sont immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit le sens prescrit mooy le juge nee na nañu réintégrer waat Ousmane Sonko dans les listes loolu lañ war a def en attendant ñuy def leneen lu leen neex. très bien euh, jàpp loo on euh, merci encore euh, alors pour yow cette décision de justice la dañ ko war waaw xam nga yàlla dafa def bi ñuy joxe verdict bi fa du fekk. dafa tombé parce que boobu la. Moussa Diop waroon donc ñun li ñu gis te jàpp ko te loolu la ñu gëm. Moussa bi dafay faral tout le temps di wax ni droit mooy ce qui doit être. dañu joxe benn verdict boo xamante ni application bi dañ ko war a def. comme tout comme bu doon Ousmane Sonko affaire bi dafa baaxul ci moom ñu gëm loolu loolu la ñuy gëmaat. donc kon suñ constance boobu noonu ci la di nekk ba léegi. maintenant <clears throat> pour préserver la paix réew mi bu ñu bëggee mu dal. dafa am ñaari question yoo xamante ni waxoon naa ko fii. il faut nit ñi bàyyi ci xel muy la justice et la légitimité légitimité Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire c'est un candidat légitime am na ay sénégalais yoo xamante ni moom lañ bëgg moom lañ gëm beneen bi ci des muy la justice tey justice moo rendre verdict loolu noonu dañu war a def lu tout créer condition yu tax Ousmane ko mën a jot ay ficham loolu la waa ànd gor yi ànd maintenant temps ci biir discours yi da ngay xam les politiques et les politiciens <laughs> parfois nit dina wax dara fekk rendre ci compte il ose dire que Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye dañoo signé contrat ma ni ko quelle la nature du contrat. Euh, Sirou Gueye ci ay euh, élections. Euh, non il a dit non non may may ma rek. permettez-moi permettez-moi Aliou Gueye Ndiaye bokkatul. pare naa ci Aliou Gueye Ndiaye léegi léegi dama ni dama ni xam nga yooyu question yooyu yëpp dañ ko war di régler. parce que il faut ñu def la différence entre politicien bi ak politique bi bokkuñu koo xamante ni ci ay calcul politique rek nga nekk sa àdduna. koo xamante ni ci sa intérêt rek nga nekk. Mhm. ba bërki démb boo njaay nga ni candidat nga. kooku noonu Sénégalais yi bëgg na leneen lu du noonu ànd góor daal li nu ànd mooy. élection bii yàgg nañ koo wax avant lii di dal Moussa Diop képp koo xamante ni dafa war a bokk ci élection yi na ci bokk ku dem ba mën a négocier nag ak ñoo xamante ni jël nañ alalu réew mi dem ak moom.